Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ku ndóbin rey sa maam boo gisee lu ñuul daw lu ñu ndóbin ci xët mu njëkk l'observateur noonu xëyee histoire ak ñun ca la xewoon ca Paris keroog ay Samba Boy def kati ñaawteef maanaam ay. yu fekk ay nit ñuy bëgg ak di jàpp seen lees ñu mette leen yéenekaay bi nañu loolee xew ci diwaanu France tax na Sénégal jamono ji jatu na ba tey ci yéenekaay bi ci xalima ak Ndeye Fatou Seck ñu xamal ku na xam ne diggante Sénégal ak France fu Sénégal France fu mu sojee Sénégal dafay tissooli li feeñ ca France Sénégal mi ngi koy bàyyi xel firndeel yéenekaay bi nañu moo di Jean Félix Pagano mi nga xam ne mooy ambassadeur France ci Sénégal jamono jii ma nga ca tigtigal bu Podor ak ci Matam waaye Ndeye Fatou Seck bu l'Observateur ma ànd ca tournée ba xamal nañu ne waa ji jamono dañu ko yokk bu baax lenen lolit amna ci l'observateur xëy ko leeralal ci communication bu ñu indi ci digënté imam yi ñu japp fi ci Sénégal imam Aliou Ndaw bokku ci japp yene kay bi l'observateur dañu bañu koy jëlee ci reub bu ca kaso bu ndar limu wax ñamu bay ci reubes modi na ngeen ma ñaan pour ma dellu ci wat momit xey xëy ci wat ci la xam pare bo nopi tégal ñu ci né Sénégal dafa wara gëna jaaju wat lu way xam nag ci dellu né Sénégal muccagul ci li xew ci diwanu Paris li tax yene kay bi waxé noné modi wa waa Sën Afrique ne daal imam yi nga xam ne jàpp nañu leen ci réewum Sénégal li ñu leen jàppee moo di dafa am waxtaanu téléphone woo xam ne soldat yi français ñoo ngi ko déggee ca Tchad lañ ca xam moo di imam yooyee ñu jàpp fii ci Sénégal dañuy jëflante ak waa Boko Haram waa mi ak waa Al-Qaïda ci la ñu xamee ne terroriste yi ñoo ngi waaj ay pexe ngir kalaate ay bomb ci Ndakaaru la ñu desee xam kay waa Sun Afrique ne moo di daal kañ la koy kalaate fan la ñu koy kalaate explosé yooyee bomb Jean-Yves Le Drian mi ministre défense ca réewum France journal bi nañu am na ku ko jege li wax waa Afrique moo di jamono ji terroriste yi Sénégal la teg ay gët enquête xëy di lox li tax Sénégal war a a boole fàggu ak fagaro journal bi nañu la ca Paris ginnaaw ba mu amee waa Daesh dañoo génne benn communiqué na ñoom la la ca teg nag moo di képp koo xamal ne da ko diggaale ak ñoom enquête nañu ñu réeri mbir ni lépp loo gis ci France rek ni ngi ko séntu ci Sénégal le témoin xëy ñu xamale Sénégal geetaru na ba dëgër blindé na boppam jamono ji l'armée beeg gendarme yeeg ñii di la ñuy xaar leneen loolu it journal bi na ci dellu siwaat mu di la xewoon ca bi nañu bilan ba ma ngay gën di nañu ñi def loolee narta sedd ci ñoom mu di état islamique yëf yi naruta sedd ndax France du ko seddal France day guerre ak ñoom guerre dëgg ca la réewum France nekk ni ay missile yéen kaay bi nañu waa France dañoo bombardé lenn ci ay position yu Daesh te it dañ ko tàmbali rek nañu fi nekk nii kay na France yi doxalee ak gars yi moo di genn bu gàtt genn bu gàtt kay fàcc danañu guerre ak ñoom France jamono ji mi ngi fayu te fayoon dañoo yandoo bombardé capitale bu Daesh am na it ay nit yoo xam ne teg nañu leen loxo nee nañu dañoo jege lool ñi nga xam ne ñoo di kamikaze yi defoon ñaaw téef ci réewum Paris lii di populaire xëy dikk ak ñun ci kàddu Jean Félix Pagano mi ambassadeur bu euh, France fii ci Sénégal nee na coowee bari rek waaye xuux mënu leen a dana ñu taxaw jonn defante ko ak gaay yi xeex ba fa mu yam neex ñi nga xam ne ñoom ñoo indi fitnaaw foofee keroog àjjuma ca Paris yéenekaay bi xëy ñu leeralal ñooy ñan leneen loolu populaire teg na ko ci moo di pexe mi ñoo ngi ko nase ci réewum Belgique foofee lañu ko l'observateur tax nañu lawoon foofee ndekete du ay doomi France rek ñoo ca faatu ci ñi ak fanweer ak ñaari doomi aadama yi faatu ci ñaawte foowee am na ca lu ëpp ñaar fukki doomi aadama yoo xam ne ay doxandim lañu maanaam dëkkuñu ci réew France ñenn ñi Chili la dëkk ña ca des Belgique ñenn ñi Mexique ñenn ñi Portugal am na ca koo xamante ni ji jigéen la Italie la fekk baax am na ku dëkk Allemagne am na it ku dëkk Maroc Libération ne ko it Sénégal fetal ko mu dee la tribune ko du moom rek rakkam bu jigéen bokk na ci ñi nga xamante ci faatu na ci moomi le mbir Abdoulaye Daouda Diallo ministre intérieur sécurité publique neñ ci xët mu njëkku libération yéene ak bëgg-bëggu président Macky moo di bépp citoyen bu nekk ci réew mi mu wattu la sa kaaraange observateur nañu waaye moom Macky nag na ko leer ne wéeruwul ci dara bil yéene kaay bi bu yaakaaree mobilisation ci jigéen APR yee ca banlieue bu pour jigéeni APR yi moom présidente départementale femme APR waaye dootu ko dolli ndax ndaje ma mu woote woon ci Géejawaay démb bu weesoo Moustapha Cissé Lo ak daanaka kenn newu fa woon kenn ñu mujj ay séesi kese la doon waxal yéenekaay bi nañu ndaje ma wëyëng la defoon fiasco total ginnaaw nag bët bu rusul tocc woo nit ñi fu mu wax leen dara mu nekk fa di leen leeralal waxi daaw ak yu daaw jékk ay terroriste ca France ay simu ay plan dañuy wër ñeent fukki département ak juróom yi nekk ci Sénégal ngir biral réalisation Macky libération nañu li ñu def démb de bu ñu ko dollee feneen fu ñu dem deru Macky Sall la ñu fay yàq ndax lancement euh, lii di jigéen ñi benn bokk yaakaar yi fag lajj tàmbalee foofee kon la tàmbalee ndax daal li nga xamante ne ji mooy seen woote ba kenn wuyu leen la fa nekkoon ciw nit matul ñetti nit sa nit ñi tey la ñuy jommeeti ubbi leen l'observateur ay mbootaay yu góor jigéen ci réew mi yéen a kaay bi nañu Aboubacry Mbodj njiit la RADDHO moo ko xamle keroog samedi ca Ndar xamle na ne am na juróom-ñeenti association yu góor jigéen yu ñu reconnaître ci Sénégal jërëjëf moom